mbokk yi baaxoo di teewlu xibaaru bambuk dal leen ci seen tënkum xabaaru bés bi. xibaaru bambuk daal doon nay dalal ñi nga xam ne ñooy doomu Koungheul yi nekk fële ca ISEP bu Thiès ci seen ki nga xam ne nag moo yoroon seen kàddu di Souleymane Sall ñëwoon amuloon waxtaan bu yaatu ak kër gi ngir jooy jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund foofu noonu sa Thiès. daal dinay yëkkatu kàddu xam ne lu jëm ci wàllum lekk geeg naan gi ba ci dëkkuwaay ba ci transport bi yëpp euh, dañ si am ay jafe-jafe te gis nañ ne amical bi nga xam ne moo jiite étudiants yi nekk ci université bu Thiès euh, taxawaay bi nga xam ne waroon na ko am si ñoom euh, dafa des bu baax ba tax na ñoom fas yéene nañ samp ci foofu ci ISEP bu Thiès Euh, seen euh, amical bopp euh, ngir fexe ba seen rakk yi nga xam ne fas yéene nañ fa ñëw ñu daal di leen teg ci condition yu baax ba tax na ñuy daal di woo bépp autorité bu nekk fii ci département bu Koungheul mu daal di leen jàppale ci bëgg-bëgg yooyu. gannaaw loolu ñu daal di àddu ci plaidoyer bi nga xam ne njiital pencum Bambouck fii ci Koungheul. jiite euh, bureau bi nga xam ne mooy jëm laal lépp lu jëm ci projet ci conseil départemental di Aliou Sall daal dina koy def jëmmale ko ci conseil municipaux yi euh, lim jàpp mooy euh, conseil municipaux yi dañoo nekk si jafe-jafe bu ñuy dem si session yi seen dëkk yu ñuy jógee pour dem ci conseil municipal bi day xaw a sori lool te gis nañ ne ñi nekk ci conseil départemental bi dañ leen di jox indemnité bu cinquante mille alors ñoom des fois sax ñoom ñooy gën a jege seen lieu que ñi nga xam ne ñooy jógee ci village yi di dem di teew ci session yi bu conseil euh, municipal amee ba tax na fas yéene na euh, porter plaidoyer bi ak bépp euh, koo xam ne xam-xam màcc na si wàllu décentralisation ngir fexe ba ñu daal di koy acté ba daal di fexe ba ñoom seen coono ñu daal di si indi ay saafara ba bu fekkee bu dul cinquante mille sañu xool lu ñu teg seen loxo ngir mu mën leen jàppale lu jëm ci wàllum transport. ñu des si wàll actualité international fële ca Mali benn attaque jihadiste moo fa am ci gox bu ñu naan Tessit ñu gis ne nag communiqué euh, fama bi bu mu génnee wanoon ne lu toll ci euh, fukki soldat ak juróom-ñaar ñàkkoon nañ si seen bakkan waaye gis nañ ne lim bi daal dina koy weesu ndax euh, fi ñu toll ñu ngi compter lu toll si quarante neuf quarante yoo xam ne daal dinañ ñàkk seen bakkan ci attaque jihadiste boobu nga xam ne daal dinañ koy def ci foofu ca Mali. di wax rek ne attaque bi bokk na ci yu gën a métti lu ëpp lu nit ñàkk bakkanam depuis ba euh, combat jihadiste si commencé fële ca Mali ba tax na sax daal dinañ génne liste 42 euh, yi nga xam ne yëpp daal dinañ fay ñàkk seen euh, bakkan ñu des wàll tàggat yaram ak waajtaay phase nationale bi ay see garab gi bu Koungheul bu zone 1A war fa teewal ODCAV bu Koungheul waaye aussi ORCAV bu Kaffrine eh, bindoon nag ay demande d'appui yónnee ko autorités yi nekk fii ci département bu Koungheul waaye gisoon nañ ne dafa xaw a sooxe bu baax na ñu bëri daal duñu woon réagir ba tax na ñu amuloon jàkkaarloo ak xibaaru Bambouk doon woowaat autorités yi ngir ñu jàppale leen ndax ni ki eh, le 15 altine lañ fas yéene tàmbali seen match bu njëkk bi war a footballaat le 17 war a footballaat ba tax na. comme ñu ngi si waajtaay yi joueurs yi ñëw nañ te bëgg nañu matériel bi mat ba bu ñu demee mën faa am séjour bu baax ba compétition bi li liñ fa bëgg am lépp ñu am ko fa ba tax na ñu daal di yëkkatiwaat ay kàddu di woo autorités yi nekk fii ci département bu Koungheul ñu daal di dugal bu baax seen loxo ngir jàppale ay see garab gi nga xam ne moo fas yéene teewal euh, Koungheul ODCAV bi waaye tamit ORCAV bu ci phase nationale yi nga xam ne mu ngi war a am Dakar war a tàmbali ni altine fukki fan ak juróom ci weeru ut bi